salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Alaaji Mbaye na dëkk votre santé seen mbokk Abass Kane moo dugg si eh, macha allah tey ñoo ngi nuyu ñëpp nag di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw tey dafa mel ni ñu ngi waxtaane lu ci xel yooyu ñu naan fri fibrom ak myome ak eh, kyste waaw muy ay gàllankoor yu sonal soxna yi macha allah. waaw bëri na ñum sonal de moo taxit waxtaane ko lu am njëriñ la ndaxit it euh, dafa nekk euh, li nga xam ne ñi muy dal léegi dañoo bëri ci jigéen ñi macha allah suñu commencé ci fibrom fibrom tur bi dëgg mooy fibrom utérin ou fibrome utérin wala myome dox fi lu tax ñu tuddee ko fibrome utérin parce que ci utérus ba lay lay lay logé wu mooy butitu njurukaay mu doon ab néewi néewi rek benn tumeur la fay nekk mel ni luy màgg nag waaw di màgg lu mu gën a yàgg rek di di màgg waaw te dafay faral di dal soxna yi sax ñu bëri suñ amee fanweeri at jëm kaw daal ci leen di faral di gën si muy gën a dal nit ñi nga xam ne dañ nañ dem nañ ba màggee ci sëyuñ walla activité sexuelle bu normal ñoom dunduñ ko même bu dee ñu ngi sëy peut ngi xaar ab jëkkër bu ñëwul ak yooyu ñooñu dañuy faral di am gàllankoor boobu moom ay conséquences nag am yenn euh, lu ci mel nii su la dalee rek da ngay faral di am booy gis mbaax rek day métti foofu la commencé booy gis mbaax dafay metti waaye tamit fibrome kum dal da nga dem ba sa fertilité dootul demee noonu maanaam am doom waa dëgg yàlla dana la jafe lool moo tax bu boobaa di ku mu ku mu dal rek taxaw ci jëm koo faj incha allah dina dina ci am dina ci am njëriñ waaw ñan lay faral dal dinay faral dal ñi nga xam ne dañoo amit yaram waaw am am yaram ñoom it fibrom yomb na leen trop trop trop waaye dina faral di dal naankat naankatu sàngara yi macha allah sàngara tamit ci cause fibrom la bu la dalee da nga dem ba gis booy gis mbaax comme ni ma ko waxee sànq euh, dina yàgg lool yenn saa yi sax waaw bu doon juróomi fan ñi nga doon def mun nga dem ba dix jours di gis mun nga def sax saignement entre entre ñaari ñaari ñaari cycle nga gis mbaax ba yaakaar ne jeex jeex a pare nga ca nga dem ba ca ay fan ci kanam rek macha allah nga commencé mel ni kuy génnewaat deret di saigner loolu tamit ci conséquence yi la bokk waaw dina def tamit foo toll rek nga mel ni ku saf tour ndox waaw dina dina tamit comme daal it da dem ba di faral di seere foo toll waaye tamit ba seq sa sa borom kër day faral di ànd ak métit yooyu ci conséquences yi la loolu mu ngi ci lu aju ci fibrome wala myome bu ko buñ buñ demee ci la la ñuy kist ñoo ñu naan kist kist moom ovaire bi lay jàpp lan mooy ovaire mooy organe boobu nga xam ne moom mooy produire yooyu ñu wax ovule ovule moom lay mooy xeetu nen yooyu nga xam ne mooy dajeeg wallax njaan bi waa fa lay doom di sosoo ginnaaw soxna si bu bu joteeg borom këram waaw te nag euh, souvent nag euh, cause yi duñ so duñ du sorewoo ko cause fibrom mandar gi du fo rek du sorek moom mais nag du benn ndax lii ci ovaire bi la ba ci utérus bi la waaye dañoo dem ba mel ni lu xaw a niroo pajin pajin mi daanaka sorewul wax sorewul ndax ñaari mbir la lu gane organisme femme jigéen bi waaw dañoo dem ba donc dañoo dem ba xaw a niroo prise en charge waaw dañuy faral bi noon ci médecine traditionnelle médecine naturelle garab yi nga xam ne mën nañ ko fajee euh, fibrom wala miyom mën nañ koo fajee kyste boo dem boo boo xoolee waaw ndax kyste loolu lépp ndax ndax ndax ndax mandarga bi fibre mu def kyste da koy def kyste te tamit kyste tamit dafay nekk genre benn saak bu mu benn saak lay def rek mais nii sac buñ sol ndox rek mu soit mu tegu ci kaw ovaire bi wala bu loolu ci biir ovaire bi donc kyste ni muy def ci ovaire bi noonu la fibrome di def ci utérus la mandarga yi ni ni mu nekkee benn nag moo moo tax traitement bi nekk benn waaw moo tax ku ko am da góor góorgóorlu nag am yenn lekk yi nga xam ne mbir mi da koo bañ waaw li naan viande rouge yenn xeetu ndawal yi daal ndawal gu xonq moom bëggu ko dara bëggul nen bëggul nen waaw nen moom it bëggu ko waaw comme kyste wala myome wala wala bi mu mujjee wax bi mooy waa wala kyste kyste wala fibrome wala myome bu mu ci doon da ngay moytu ñaar lekk yooyu yàpp waxoon ko mooy viande rouge da ngay moytu suukar su bëri da ngay moytu kafe bu dee ñiy jël butéel bi tamit moom moom nañ ko bàyyi ndax loolu da koy favoriser te bu demee ba dalet moytu ko mooy gën yooyu ku koy ku koy jël rek waaye tamit da ngay lépp li nga xam ne saf na suukar trop saf na suukar trop baaxu ci waaw bu ñu demee ci côté traitement bi dafa am liñ ñu naan aloe vera nga xam ne feuilles yi boo ko pressé day am benn jus bu ci bu ci bu ciy génn gis nga jus boobu boo ko amoon boole di ko boole ak lem di ko naan tey boo jëloon ñetti ñetti feuilles ñetti xob ñetti aloe vera nga pressé leen ba jus bi génn loolu nekk ci noonu nga jël kuddu lem nga def ci biir waaw kooku boo amee di ko def suba ngoon am na ci njëriñ lool am na liñ naan huile huile de ricin huile boobu jigéen ñi xam nañ ko moom dañ koy faral di def seen karaw yi boo amee huile de ricin da koy frotter bi yoon ci biir bi waaw ci biir bi ci biir bi ci partie estomac biir bi yëpp daal biir bi daal lu wër biir bi yëpp ba ci bas ventre ba ci suuf wàcc ba ci côté ndox bi foofu yëpp da koy frotter muy tooy après nga wut compresse bu tàng nga ko cay teg nga mel ni ko ko ci dàmp ndànk biir nag kenn du ko bës waaye nga ko dàmp ndànk mu lu tàng daal lu tàng compresse bu tàng yaa xool noo koy tàngalee ndax da ngay tàngal ndox ba mu tàng dugal ko ci biir ndox mu tàng bi seet ko nga bàyyi bu mu dugg nga teg ko ci li ko ci bës ndànk ngay faral di def loolu souvent waaw ngay faral di ko topp di ko topp di ko def souvent dina ci am njëriñ bu baax waaye nag li ci gën a gënatit mooy li nga xam ne mënul ñàkk traitement bi mooy ñett yi ma lay jox nga xam ne da koy boole reenu ngollumaar reenu suuruur ak xasum bépp reenu ngollumaar reenu suuruur ak xasum bépp tey benn bu ne boo ci amoon benn takk benn bu ne boo ci amoon benn takk nga def ko ci ñaari litre ndox ak genn wàll waaw nga baxal ko rek ndax boo ko boo ko xoojee mun naa mujj wex xatt ndax ngollumaar bi ci biir moo moo tax lu mu ci gën a yàgg day gën a weex mun na dem ba doo ko supporté wala dose bu bëri waaye bu amee reenu ngolu ngolumar xasum mbéb ak reenu suurur nga baxal ko ci ñaari litre ndox ak digg ak genn wàll bu baxee rek nga teggi segg bàyyi bu seddee rek nga ciy jël kaas suba kaas ngoon bu jeexee nga tollanti ko waaye waaye loolu moom comme ku am kist wala ku am kist wala wala wala wala wala wala fibrom góorgóorlu ba essayé loolu rek di nga di nga ci gis miracle bu yéeme da nga xëy rek mu mu ba mu bàyyi la waaw ñett yooyu daal booleel ma ko rek di ko jël leneen loo leneen looy jël rek baax na mais ñetti yi reenu ngolmaar reenu suurur xasum bépp nga togg ko di ko naan kaas suba kaas ngoon ba xam liñ ci gis taw feex mu wér waaye boo mënee tamit di jëfandikook laaj laaj sa ci tëccal laaj tàngal ndox ba mu tàng def ko ci digg kaasu ndox te ci desel benn laaj def ci biir bu ko defee nga wut euh, ñaari kuddi ndaw lem def ci biir yëngal ko nga koy def su nga koy def bés bu ne moom tamit baax na suba si moo gën waaw boo mu ne boo yeewoo balaa nga lekk dara nga góor góorgóorlu nga def ko kooku tamit nga jéem ko nga topp ko lu yàgg incha allah yii daal ku ko def góor góorgóorlu ci mën ngaa dem ba sa fibrom lu mu garaaw garaaw garaaw bàyyi la incha allah waa kay jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi ba léegi seen mbokk Abbas Kane la di xanaa di rafetlu li fi jot a jaar yëpp macha allah ci lii ñuy waxtaane muy fibrome ak myome ak kyste waaw macha allah waaye xam naa it euh, di jégalu nag mm, dagg message yooyu dagg rek macha allah du suñ coobare de waaye xam naa jigéen ji nga xam ne comme que jàngoro jigéen yi la jigéen ñi lay dal jigéen ji nga xam ne euh, dalagu ko moom xam naa danay yittewoo xam na la nit di moytandiku wala def ba daanaka doo ci am benn du kyste du myome du du du du fibrome ndax am nay prévention ndax mën nañ koo mën nañoo fegu ba du la dal ndax dafa nekk jàngoro ji nga xam ne ñu bëri boo leen laajee dañ naan sax dañuy njort ne lii ak lii lii moo koy joxe waaye jotul leer waaye nag yiñ ci njortu nag neexula dindi ndax boo seetloo sax loolu ñuy wax boo xoolee ci cause yi ñi ko am ñëpp souvent cause yooyu mu ngi mu ngi yooyu mi ngi mi ngi ci ci biir waaye nan la ñuy moytoo pour bañ a am kyste wala myome wala fibrome bi ci njëkk daal mooy del ëmb di wasin waaw sit jigéen buy sëy da ngay ëmb di wasin jigéen ji mat a sëyit boo boo boo sa sa sag mooy nga sëy waaye boo sëyee nga am cycle normal yàlla dimbale la ngay ëmb di wasin ëmb di wasin mooy ki ku ko yàlla may ku yàlla wéral ba nga xam ne da nga toll nga ci fertilité nga éviter planification te ëmb ëmb normal wasin waaw wasin bu ko defee mën nga cee mucc waaw wasin boo wasinee boo nampal ñaari at wala boo ko jëlaate ëmb aayul waaw nga xam ne yaa ngi ci yaa ngi ci sa yaa ngi ci yoon bu normal bi waaw parce que euh, jël pilule bu bari bokk na ci cause yi de waaw jël pilule bu bari bokk na ci waaw bokk na li li ci li indi wér nag ci jigéen jigéen ji sëy mooy ji sëy di ëmb di di wasin waaw bokk na ci li évité tax jigéen du am fibrome waaw boo ko seet la ñooñu du ñu am problème fibrome nga xam ñu ngi ci cycle normal normal ba rek buñ Eh, jëlee ëmb nàmpal ñaari at bañ ca pare jëlaat ñoom daal noonu lañ koy jàppee ba keroog ñuy taxaw ñuy ménopause macha allah ndax dina gën a yëpp ñi nga xam ne dañuy ëmb noppalu juróom-ñaari at wala juróom-benn at doogu ëmbaat kon doog li ci am solo loolu ñu ñu leeral ko waaye nag jigéen ñi tamit nañ xam ne di def exercice yi baax na def euh, sport comme góor ñi jigéen ji def sport bëriwul lu muy am fibrom boo seetloo ndax sport da nga ñàkk surplus excès de graisse bi dana génn donc di nga di nga éviter surpoids di nga éviter obésité waaw yaram bu ëpp te ñooñu la gën a yab donc loolu tamit ñu ñu bàyyi ci xel waaye xam naa it bu demee ci ci côté sa lekk yeeg yi ñu war a jël ak yooyu xam naa ne dara gënu ci légume légume yii waaw lekk lekk plat yu riche légume rek la légume daal di ko di ko jël lu bari baax na ci lool dina la dimbale mën nga cee mucc waaw waaye produit yi nga xam ne base bi meew la dara gënu ko muy fromage muy yaawur ak xeet googu attaaya waaye soxna yi bëri na attaaya xaw ma lu tax nag waaye attaaya dana attaaya prévention bu baax la ci ay fibrom ak kyste ak ñoom boo koy jël bi gën nag ci tee mooy thé vert waaw boobu ñu naan thé vert thé vert moom daanaka boo koy jël amul lum la mënul amul ci lum la mënul aar rek waaw ci xeetu jàngoro yooyu macha allah xam naa di ci njëkk mooy obésité mooy jël yaram bu bari te yaram boobu bu bari boobu boo ko jëlul rek mën nga dem ba mucc ci ñoom kist ak ñoom miyom ak ñoom borom waaw yooyu daal lañ ci bëggoon yokk rek ci conseil yi ñu joxe woon sànq ci wàllu faj waaye yi tamit pour ki nga xam ne dalagu ko mu soxla woon xam naal nan la mën a moytandikoo ba suñ borom dimbale ko ci incha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allo professeur groupe waaw ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di gërëm participants yu bees yëpp rek waaw macha allah ñu dugg démb ak tey xaw nañoo bari ñu ngi leen di dalal ñoom ñëpp di leen jaar di leen ñaanal jàmm di leen ne ah, bismillah rek bismillah ci lii nga xam ne mooy pajum gàncax waaw waaw moom mooy lu ñuy yëkkati rek ci rek la ñuy def wax ci lañuy ñuy waxtaan ci la ñuy joxe ay tegtal loolu nag mooy charte bi xam naa dugaloon nañ ko dinañ ko dugalaat kenn ko ne dugalu nit nag bu amee mbir moom fonk ko bu gisee ñu ko ko fonk la rek da ngay sant yàlla waaw te ñun ci wàllu paj moom daanaka gëmuñ ci dinañ lu gàncax rek waaw sunu gàncax réew nag surtout buñ ci amee leen nag ñu boole ci waaye gàncaxu réew mi lañ gën a fonk waaw ngeer gaak rat baak wala ngeer maak rat rat yooyu nekk ci àll bi bëri fi ba ci kàdd ak lay duur ak xeet googu yëpp rek waaw moom daal xam nañ ne sa kër yi ci làkku làkku yépp ñun sax xamuñ ko ba jeexal ko waaye nag di bés bu ne ñu ngi gëstu di dolli gëstu yi di ci xiiftal nit ñi gàncax nag ci ciy faj ki ciy faju wér boo seetloo ci lañ ci seetlu mooy ki ko gëm waaw ki ko gëm ndax dafa nekk lu local donc foog nga gëm local <laughs> lii <laughs> sëñ Ousmane Cissé doon nettali jàmm ne mu ne waa ji waa ji dafa ne moom du sol local mu ne ko yow ngay local ba pare di bañ lu locale <laughs> en tout wax nga dëgg de nag gàncax gi pour nga faju ci yàlla may la tawféex seetlu nañ ne daal day fekk d'abord da nga kaa gëm maanaam doo ci dem di ci faju faju ñàkk pexe nag waaw doo dem ci xene yeneen xeetu mbir ñu jox la yu posone sa yaram boo yaram bi fees dell ak poson nag waaw nga ne léegi ñàkk naa pexe ñi sonal lañ ma xaaral ma dellu ci gàncax gi kon d'abord da nga koy gëm waaw da nga koy gëm waaw koy gëm leen li ci topp mooy ki la ciy faj da kay koy wóolu nag ki lay faj moom boo ko wóoluwul du ma sa sotti waxumal nag ku la nekk kenn ku ne da kay kaa wóolu par par force waaye daal fa ngay dugg di ci faju wala ka dem di faju ci moom da koy wóolu waaw koy wóolu wóolu lim lay jox waaw am nga droit nag nga ñëw ci nit doyu la nga dem feneen waaye boo engagé woo rek na fekk ne na ànd ak confiance boobu qualité boobu len li ci topp pour garab yi am am njëriñ ci yow su dee yaa ngi bëgg a fajoo faju fajum gàncax da ngay faral di lekk lu local tamit waaw waaw da ngay faral di lekk lu local mënoo lekk lu li nga xam ne importé la ba pare bëgg fa bëgg a fajoo local yi importé nag gis ngeen ko waaw am na jamono ay kiwis la woon kiwis ñu naan la kiwis te la waaw yow kiwis rek nga gis bu ko jëfandikoo xay na léegi gisatuñ ko wala bëreetul waaye léegi dañuy gis foie ñu ne lii res la aywa res buñ importé nga bëgg ko di ko jëfandikoo wala yooyu ñu tudd tuddee plat industriel yooyu ñu togg rek ak nuñ ko mën a tuddee nag def ko ci ay pot nga bëgg koo jëfandikoo ci wàllu lekk waaw wala boisson yooyu nga xam ne dañ ko sol ci butel rek sàññ rek yónnee la nga bëgg koo jëfandikoo ci wàllu naan yow mi nga xam ne yaa ngi yaa ngi jëfandikoo loolu ci wàllu ci wàllu di ko jëfandikoo pour nga am feex ci wàllu wér-gu-yaram du yomb waaw du yomb surtout nag bu dee da ngaa bëgg a fajoo gàncax maanaam kii fajoo gàncax gàncax jëriñ ko da ngay jëriñoo lu local à cent pour cent su cent pour cent yi mënul mat mook na doon quatre vingt quinze pour cent da ngay lekk lekku réew mi te mu doon lekk gu sell lekk réew mi sax dafa mos a sell moo tax fan yi ñuy indiwaat ndono mag ñi sunu nijaay sëñ Mouhamadou Diakhaté dañ ciy wax mag ñi nañ daan dunde donc lekk réew moom dafa musaan sell xanaa léegi lañ ci lañ lañ ci boole ci bokkul waaw kon nag nit ki dina feebar di faju du wér fekk dundin gaa sellul dundin nga bëgg a fajee gàncax di lekk ay plat importé du an àndul waaw bu ko defee ki lay faj sax ki lay day mujj a tàyyi day mujj sonn bu la ko waxee bu la ko waxul ndax résultat moo dul am waa parce que boo jógee fii yaa ngi ci xeetu lekk googu waaw nga xam ne poson la ci sa wàllu yaram waaw day mel ni ñii di gas ñii di suul kan moom du mës a am loolu tamit dañ ciy bàyyi xel booy traité wu da nga bàyyi da ngay bàyyi da ngay bàyyi da ciy bàyyi xel donc point yooyu am mat lu mat a saytu la nga gëm gàncax gi gëm ne gàncaxu réew mi mën na laa faj nga doog cee faju nga wóolu ki lay faj comme que gàncax gi lu local da ngay jëfandikoo lu local ci sa wàllu lekk waaw ndax yooyu boo ko respecté di topp fajum gàncax lu ci ëpp wax dëgg yàlla da am résultat bu kawe sa njort waaye bu dee daal da doy del yooyu yépp nag bëgg a faju du sotti kon ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel waaw ñëpp nañ ci bàyyi xel waaw gàncax gi daal pour mu jëriñ la mooy sunu xas yeeg sunu xob yeeg sunu reen yi waaw dafay fekk ne ci sa dundin tamit yaa ngi koy bàyyi xel yi nga xam ne moom mooy lekk gu baax yi nga xam ne am na ci réew mi yaa ngi koy lekk waaw mu ne faju di dundee bouillon yooyu di ko def ci li ngay togg bëgg a wér mu nooy faju di naan xeetu boisson yooyu ñuy importé bëgg a wér di naan jus yu saf suukar yooyu ñuy importé bëgg wér waaw yooyu yëpp nag nit ki daf cee war a bàyyi xel buy faju bu bëggee am wér gu yaram am na xeetu jàngoro yi nga xam ne bàyyi suukar rek faj na ko suukar su bon si ñuy lekk ndax suukar si lem mën na ko remplacer suukar si moom amul benn njëriñ waaw ndax am na ci xeetu jàngoro yenn saa jarul naa ni xob jarul naa ni xooji ren di naan daa li ngay bàyyi rek jàmm ne ñooy am na xeetu jàngoro yi xam ne dafa am li ngay bàyyi ba pare ñu doog laa jox lañ lay jox nga boole yaa ngi faju ñu ne la lee bu ko ci bu ko jëfandikoo nga def ko am jàmm kon nag mi ngi noonu loolu nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp defal ñu sutura ba eh, li ñu li ñu ñuy xaar ci médecine traditionnelle yëpp rek ñu gis ko ci te am nañ ci yaakaar ndax moom moo fi nekk comme médecine nag waaw moom moo fi ne ñëpp ñëpp rek toogu tar dañ dellu ci gàncax gi ndax moom mooy faj moom mooy faj asalaamaaleykum wa rahmatullah